billahi samil azim bismillahirrahmanirrahim rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu assalamu alaykum mbokki jullit yi assalamu alaykum mbokki talibé yi noo ngi am mbégte dellu si waat fii ci kuréelu toute fédération tout temps ki tos touba toscana eh, di ziar ñëpp am mbégte nag eh, ci dalal bi nga xam ne moom la ma soxna ma dem dalal eh, ngir ñu dellu si waat ci waxtaan wi nga xam moom lañ doon def semaine bi passé mu jëmoon ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu mayam kayit euh, ndax ñëpp xam nañ ni euh, maa ngi leen doon wax alxamis bii ñu weesu ne euh, dañuy xaar ba ñu publier loi bi ci gazette bi pour de manière officielle ñu mën a xam exactement nu loi bi bindoo mel na ni léegi daanaka léegi ñëpp xam nañ loi bi nu bindoo kon nag hmm, ñu dugg ci biir waxtaan wi rek di leen xamal ni euh, loi bi maanaam nii ñu ko mën a demander ndax nag dafa am spécificité boo xam ni euh, moo tax ñuy wax régularisation bokkul ak sanatoriat ndax en général bu ñëwee sanatoriat dañuy wax képp ku am contrat rek boo ñëwee mën ngaa dugal waaye bii régularisation la dafa am secteur yoo xam ni ñoom ñoo ko moom secteurs yi ñett la benn bi mooy li nga xam ni moo jëm ci wàllu agriculture agriculture nag yaatu na mbirum bay sàmm napp yooyu yëpp ci agriculture la euh, boo fa jógee nga dem ci lii nga xam ne moom la ñuy wooyee assistance la personne mooy ñi nga xam ni dañuy toppatoo nit ñi nga xam ni seen yaram dafa sutante wala ñu am ay xeetu laago wala handicap yu mel noonu maanaam daal mënuñu seen bopp gannaaw loolu ñuy liggéey ci kër yi euh, ñu leen di wooyee domestique ñoo ñetti catégorie yooyu ñoom ñoo mën a ñoo mën a def demande kon nañu xam ni tey jii képp ku bëgg dugal ci ci ci ci ci demande bi ñooñu euh, ci ci ci ci xeetu contrat yooyu ngay wut waaye itam boo amee loolu da ci war boole bu fekkee mosuloo am këyit da fexe ba le 8 mars fekkoon la ci dëkk bi nga am lu loo ko mën a maanaam euh, mandarga xeetu preuve loolu xam naa dinañ ci dugaat ci ay jamono wax leen ñu mën a war a mën def ba am preuve lu mel ni par exemple carte consulaire boo xam ne dañ ko antidaté wala boog nga am lu mel ni loo jëndoon moo xam xeetu garab la wala billet loo xam ni sa tur daf ci nekk luy firndeel ni yow mii waxtu bii fii la la fekkoon kon lu mel noonu tey jii bu ko nit amee euh, mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa mën na ko wut ko ñu ne nag ñan ñoo mën a def demande bi ñi mën a def demande bi mooy cittadino italiano cittadino europeo ak bépp immigré boo xam ni am na carte de séjour ba pare am xeetu maanaam yi ñuy laaj nga mun koo matal waaw ndax tey jii euh, bu fekkee italiano bi dafa yore par exemple société boo xam ni dafa jëm ci wàllu mbay il faut que mu mën a démontrer ni moom société bi nekk na en règle am na bilan yooyu yëpp dañ koy laaj parce que nag mënoo ñëw rek ni damay defal nit contrat euh, da dangay def wane partite IVA bi inscription eh, ci ci ci ci ci algo bi pour wane ni yow say activité mi ngi daw normalement xeet yooyu lañ lay laaj bu fekkee assistance à la persona par exemple nit ki bu dee dafa am wàññiku wàññiku lu mel ni par exemple eh, certificato invalidità bi wala accompagnement bi loolu dina doy pour ñu mën a def contrat bu dee contrat domestique nag moom contrat domestique la rek nit ki day ñëw ni la dama lay jël pour nga defal ma contrat léegi ki nga xam ni italien la moom bu dee eh, société la yore il faut mu joxe kayitu société bi moo xam code fiscal partite IVA peut-être ak bilan bi bu dee ki nga xam ni dafa jagadi ñu war koo assisté kooku kayitu ki jagadi maanaam carte la clinique rek doy na waaye bu fekkente ni labor domestique la tam foofu dañuy laaj ki nga xam ni day jël nit ki ndax nag nit mënul ñëw rek ni damay jël ku may liggéeyal sama kër ba pare yow lan koy fay mënoo ko am kon su boobaa dafay jaadu nit itam war a war a war a mën a wane ni moom nii am na lu mu fayee moom la ñu wooyee reddito bu fekkee immigré bi la nga xam ni amul si amul amul cittadinanza dafa war a yore carte de séjour waaye it dafa war a yore reddito boo xam ni dana wane ni kii kat mën naa mën na koo defal contrat bi nga xam ni moom la koy ndax nit ki mënul di fay ko 1000 euros bëgg di fay 700 euros par weer kon li muy dundee. Eh, dafay xaw a yooyu dafa nekk loo xam ni lu lu lu lu lu a bàyyi xel la léegi nag ki nga xam ni aussi moom moo koy demandé eh, il faut mu am passeport boo xam ni eh, maanaam passeport bu nekk en cours amul passeport xam naa ni ci tàmbali bi moom il faut au minimum mu daw dem defar carte consulaire parce que document boo xam ni. document bu en cours de validité mooy ki nga xam am kayit tam depuis 31 octobre 2019 même bu fekkee que kayitam dañ ko doon demander séjour à condition que mu mu présenter contrat bu muy accompagner Alors loolu da ngeen am na ñoo xam ni par exemple dugaloon nañ seen kayit wala amoon nañ jafe-jafe mënatuñ ko woon mënatuñ ko woon euh, mënatuñ woon am euh, nu ñu def ba dugal ko wala sax ñu téye ko ci biir kooku war na mën a def euh, demander lii nga xam ne moo di moo di moo di con moo di contrat bu bees léegi aussi c'est très important parce que dama bëgg nit bàyyi ci xel bu baax maanaam ñiy présenter demande yi ñii ñoo koy tuddee ñii ñoo koy présenté maanaam euh, kii moo koy présenté euh, IMS moom moom la ñuy defee demande bi Sportello Unico ak Questura kon na ngeen ci bàyyi xel bu baax ndax léeg-léeg euh, ñii naxaate dañuy ñëw di la laaj ak ñii jaay contrat yi am nañu seen léeg-léeg ay doomu aadama yoo xam ni yii bu xewee dañ ciy profité di bëgg a lekk nitu xaalis xaalisu nit ñi di leen def loolu ne kon ñu xam ni tey jii képp ku am demande Euh, IMS lañ koy demande demandé te bu ñu koy wax sportello euh, sportello immigration lañ koy wax wala patronato ndax yooyu en général moom mooy barab yu wóor yi nga xam ni bu fa nit demandé du am problème parce que nag nit ki mën na ko sax demandé boppam mais en général pour bañ a courir risque ndax nag lu toll ni dama wut kayit nit bu koy def war lu wut ay garantie yoo xam ni euh, dina am koo xam ni expert la bu ko dugalee du ci am. mooy sportel immigration yi mooy par exemple xeetu lu mel ni comme man bureau bi may liggéey ñun dañ koy dugal man dinaa ko dugal par exemple euh, waaye itam patronat dinañ ko dugal lu mel ni ay sigel sama syndicat euh, euh, ci ci li nga xam ni moo jëm ci contrat yi nga xam ni moom la liggéey pour waaye ña nga xam ni par exemple dañu amoon kayit kayit bi jeex foofu foog ñu ñu ñu xamee nit ki bu demoon par exemple euh, euh, mel nu am Pape Demba yoroon kayitam kayitam jeex léegi ba ñu nangu wala par exemple kayit bi mënut koo dugal bu fekkee dafa am contrat bu bees au lieu que muy dem euh, IMS moom directement Kestura lay lay lay dugalee demande kon ñu xam ni ñetti différence yooyu moo am ki déposé IMS ki déposé sportello immigratione ak ki nga xam ni. Euh, dafay déposer question euh, immigré yi moom ñi am ñi am par exemple euh, carte de séjour ñooñu ñëpp supporter la immigration la ñuy déposé waaye immigré cittadino italiano yi ak cita ñi am par exemple citoyen citoyen européen yi nga xam ne dañu am résidence fii ñooñu fii bu ñuy déposé IMS bi ñuy déposé kon ma bantuwaat ko ñi déposé IMS mooy italien yi ak waa Union européenne waaye képp koo xam ni da nga am carte de séjour wala nga nekk ci pays boo xam ne extra la yaa ngi déposé ci sportel immigration képp koo xam ni séjour am dafa jeex ñoo ñu war a déposé ci contrat ñooñu ñu ngi déposé question waaw kon ñu xam ni képp koo xam ni mosuloo am kayit di def demande bi pour la première fois bee passé maa ngi waxoon ni 160 la waaye def nañ benn modificat boo xam ni cinq cent euros ngay fay kon ñu xam ni daanaka képp kuy def demande bi eh, di doog a am def demande bu bees mosoo am kayit ci dëkk bi cinq cent euros ngay fay waaye ñi nga xam ni par exemple dañuy def demande eh, questure yi ñoom cent soixante euros la ñuy kon mu mel ni daanaka rek yii fi moom comme ni ngeen ko gisee rek daanaka ab xeetu commerce la boo xam ni eh, moom daanaka xaalis bi lañ ciy gën a wut lu ñuy wut que que yëf yi ndax man moo taxoon ma leen doon wax ni leen euh, boo moytuwul bu ñu delloo ci ci ci ci ci biir ci biir euh, kii bi bu ñu commencé étudier dossier bi boo moytuwul dina dina am ay changement léegi ñu ñu ñu xam ni aussi durée permis de séjour bi six mois la euh, six mois lay am première première permis bi six mois la léegi buñ la joxee six mois après boo am bu contrat bi normalé eh, ñu mën ko ñu mën koo ñu mën koo renouveler kon nañu xam ni euh, euh, permis bi euh, mi ngi mi ngi mi ngi coûter liggéeykat bi 500 euros capot bi moom it def naa 400 euros la koy la koy coûter te defaguñu lii nga xam ni moo di una tontum forfait bi nga xam ni moom la war a fay pour taxi yi ndax nag nañu xam ni. képp koo xam ni da ngay jël nit boo koy jël da ngay déclarer ni eh, yow da ko doon liggéeyloo dans le noir loolu eh, auto certification la boo xam ni dañ koy tàmm di def maanaam pour mën la eh, pour la mën la mën la foo xam ni daanaka da ngay am jafe-jafe pour bu ñu paree bu ñu la mënee laaj ay ay ay ay remboursement nga mën ko fay waaye li ñu xam ni remboursement yooyu en général mi ngi nekk ci lii nga xam ni Euh, ci wàllu liggéey kii lay liggéey loolu mais du ci wàllu euh, euh, ki nga xam ni moom mooy liggéey waaw ma dellusiwaat di leen fàttali rek ni maanaam forfait boobu nga xam ni liggéeykat bi daf koy fay datoor bi tam daf ko war a fay bu fekkee moom fay ko dafay am dafay am du ñu mën a accepter du ñu mën a accepter lii nga xam ni moo di moo di demande bi kon nañu xam ni képp koo xam ni dafa war a demander séjour euh, bu fekkente ni euh, mosoo am kayit 500 euros ngay fay bu dee da amoon kayit 160 euros ngay fay sa capot doog a fay lii nga xam ni mooy forfait bi nga xam ni moom lañ koy defal ci loolu euh, bu fekkente ni amu ko moom bu fekkee fay ko moom dafay dafay demande bi day ñuul ñu xam ni aussi lii nga xam ni mooy ñuulal demande bi mooy képp koo xam ni mës nañ la daan. daan bu jëm ci wàllu euh, lii jëm ci wàllu ay xeetu euh, euh, liber délit ci liberté perso liberté doomu aadama moo xam da ngay def ay séquestre persona wala violence ci nit moo xam nga nga nga xeex nit bu dóor ko ñu ñu ñu ñu daan la ci wala par exemple nga nga doon sàkku jigéen ñu daan la ci walla nga sàkku gone ñu daan la ci wala par exemple xeetu ay conditionné manam adis ko maanaam lépp lu jëm dal ci walu reyaatu yooyu nga xamni mo jëm ci walu tam ay xétu jaay drok wala jamet al immigration e clandestine xeetu xeetu yooyu nga xam dal daal daanaka dafa nek ay déli déli yu nga xamni fi mom lañ lay contester article 380 del code codice penale yooyu yëpp da fay tax Euh, boo déposé demande bi duñ ko am loolu dafay tax toujours léeg-léeg bu nit amee fii daan wala euh, euh, ñu ñu def la dénoncé da ngay dem ci avocat nga jox ko mu xoolal la en général ban xeetu topp lañ lay lañ lay topp waaye itam nañu xam ni topp la taxul ñu daan la léeg-léeg sax ñu daan nit benn daan bu njëkk mu def ricorso ricorso bi daanaka day tax daan bi du nekk loo xam ni dinañ ko mën a exécuté kon nit ki tam bu ñu la daanee bu doon daan bu njëkk nga def recours bi convoqué ñu audience bi mën nga def demande bi parce que su boobaa euh, amul lenn loo xam ni mi ngi lay gàllankoor pour nga mën a dugg ci décret bari na ay mbokk yoo xam ni ussi euh, interpellé nañu ci lu am solo loo xam ni dama bëgg ngeen bàyyiwaat ci xel bu baax mooy richiedente asilo yi ndax euh, richiedente asilo yi ñu ci bari yàlla dogal na Euh, am na ñu instance ñii par exemple euh, ñu jox leen ay permis de séjour un an ba ñu ci permis yooyu ñu am ci liggéey boo xam ni dañ leen defal contrat indéterminé ñii sax donte par six mois six mois lañ leen di may mais am nañu contrat indéterminé ñu bari interpellé nañu aussi di ma laaj ndax ñooñu dañoo war a dugal ci kayit ma leen di xamal ni euh, bu doon sama sago doo leen ci dugal ndax dugal ci dafa mel ni nga am. am am am am jaaro jaaro jaaro jaaro jaaro or ba pare di dem wàcc ko fa di dem wëri njeexital përëm ndax ki nga xam ne yor na contrat contrat liggéey nga xam ne fii liggéey en général moom la dëkk bi di di base wu may la këyit ci te ci këyit yooyu daanaka moo leen xoolee moo tax ñu leen di jox six mois nga bëgg ko bàyyi dem jël benn contrat boo xam ni valeur bi mu am moo gën a tuuti ndax boo xoolee tey ji contrat yi ñu leen di may da ngay fayam ba pare euh, six mois lañ lay may euh, six mois yooyu xamu leen luy am parce que tubaab bi dañu doy waar te boo leen xoolee daanaka ñii nga xam ni may nañu leen euh, ñu ngi leen di suivre ñu demander asilo bu dee commencé nañu liggéey man am naa yaakaar ni këyit yooyu duñ ko ñàkk te it nag nga dem di déposer loo xam ni wóoru la te bàyyi lu wóor yaakaar naa ni loolu bu xel loolu Euh, dama leen di euh, xelal euh, ngeen fexe ba bu bu bu kenn yore contrat ñi nga xam ni dañu am contra nag laa wax ñi nga xam ni amuñu contrat ñooñu nga xam ni dañ leen daan jox par six mois te jàppuñu ci lenn ñu bu leen neexee ñu changé dem waaye képp koo xam ni ndax nag na ngeen xalaat ni boo xasee ba dugal demande bi dafay annuler demande asile parce que ñaari demande kenn mënu ko yor te toujours demande bi mujj moom mooy nekk demande bi nga xam ni mooy nekk en court de validité kon ki nga xam ni am na contrat indéterminé moo xam ci hôtel la moo xam ci restaurant la moo xam fu mu mënti doon ndax bari na gaa yoo xam ni wax dëgg fa yàlla bi ñu amee euh, bi ñu ak kii wu mois yi am nañu seen carte am lépp ñoo ñu déjà dugg nañ ci circuit normalisation. bu ñu bëggee génn ci circuit boobu bëgg reprendre à zéro daanaka dafay nekk loo xam ni xeetu suicide laa ko tudd euh, ñi nga xam ni nag moom daanaka dañu yoroon seen séjour séjour bi jeex ñu war a dem demander beneen séjour pour contrat ñooñu seen yëf moo gën a yomb parce que ñoom daanaka bu ñu demee questura rek euh, yaakaar naa ni ci biir mois bi dinañ leen définiral seen demande euh, bu ñu joxee documentation moo am contrat beeg. Euh, yi ñu war a def euh, bu ñu defee yëpp dañuy dem bu ñu demee question rek ñoom dañ koy définir ci saa si pratique boobu moo gën a gaaw mais ñi nga xam ni par exemple dañu am contrat bi nga xam ni euh, dañ ko war a def moo xam mu jëm ci wàllu tool yi moo xam mu jëm ci wàllu assistance yi wala lavoro domestico ñooñu dañu war a defe naa ni dañu war a yóbbu seen demande après bu ñu paree. dina am contrôle boo xam ni euh, inspectorat de l'abord da koy def pour doog leen mën a jox attestation bi yo yónnee attestation bi questura pour ñu mën koo ñu mën koo ñu mën koo ñu leen a defaral séjour yaakaar naa ni parce que tam liggéey bi il faut ñu contrôler ndax liggéey bi jaar na yoon ba pare parce que loolu dafa am solo euh, et puis ñu xam ni effectivement ki ñuy defaral kayit yi ñu ngi ñu ngi teew ndax nag il faut ma wax leen ko ni kii. du sanatoria boo xam ne comme yëraal am nga xam ne mën nga defaral nit euh, euh, contrat mu jóge Sénégal ñëw kii ñi ñuy defaral kii yëpp ci biir dëkk bi la war a nekk donc heure bu ñu la soxlaa ci biir territoire bi dañ la war a gis te it da war a wane ni yow la donc loolu dafa nekk loo xam ni euh, lu lu lu lu lu mat a bàyyi xel la ñu xam ni aussi itam xeetu preuve ni mu ko waxee woon sànq rek. Euh, lépp lu waaye am rek lu wane ni euh, fii la nekkoon ci dëkk bi moo xam nga monsieur am jaga di dem pronto soccorso ñu jox la referto pronto soccorso bi wala par exemple nga dem euh, dem def ay ay ay visite wala maanaam loo xam ni daal ci officio pubblico nga ko def ñu jox la benn mandarga boo xam ni attestato boo xam ni sa tur daf ci nekk Euh, ndax ñi amul kayit yi du mën a am code fiscal donc lu dul xëy na lu jëm ci wàllu hôpital euh, euh, day jafe léeg-léeg am luy wane ni ñoom ñi ngi xëy na peut-être lu mel ni ay flexibus par exemple nga jënd ak sa tur yooyu yëpp mën na nekk ay preuve yoo xam ni nit ñi mënees na cee mënees na cee mënees na cee sukkandiku waaye ñi nga xam ni dañu am carte de séjour bëgg a dugalal nit foofu tam dafa am solo euh, dañuy taamu nit ki nga xam ni par exemple euh, mi ngi këram nekk njabootam parce que tam yenn yenn yenn euh, maanaam environnement bi dafay favoriser nit bu defee kayit ñu mën ko accepter donte am na benn moment boo xam ni nit ki dañ boo defee kayit duñ ko mën a bañ parce que remplir nga condition yi waaye par exemple boo yoree sa famille fi yor sa njaboot yor say yor say doom mun nga wax ni par exemple dafay ñëw di ma defal ay babysitting nii yooyu xam nga loolu euh, laboro domestique la euh, kon nga am kudd boo xam ni matal na ko waaw yor kër waaye ñu xam ni aussi itam léeg-léeg nit ñi dañuy def yenn erreur da ngay gis ñaar ñu nekk ci kër ñoom ñaar ñëpp bëgg a defaral ku nekk contrat donte donte yéewoon ngeen waaye mënta nekk ndax nag euh, ñun sénégalais yi mënuñu amuñu déjà da ngay xool même kër tubaab yi nga xam ne sax dañu am bay am barke bu euh, ñu jël ñaari bi daan ci kër waaye boo gisee ñaar wala ñetti contrat ci kër bu ñaari nit ku fa nekk rek yaakaar na war ngaa mën a defal nit contrat loolu euh, nañ leen ci bàyyi xel ndax léeg-léeg yàkkamti euh, ak parax parax ak nëbbatu lu ci ëpp daf ñuy indi ñu ñu demande ko demandé bu mooy ndax nag yaakaar naa këyit ni mu fooree ak ni mu ni mu jafe nit ki ñëw ba toll ci dugal ko war naa mën a laaj. mi ngi tàmbali le premier juin ba le quinze juillet ci weer boobu war nañu mën a laaj nit ñi laaj ñi nga xam ni tey jii am nañ ci xam-xam ndax bari na ñu nekk ci dëkk bi ñoo xam ni euh, war ngeen mën a dem ñu expliquer leen naka la ñuy naka naka la ñuy présenter kayit yi même boo amee sax kayit yëpp balaa nga koy déposer nga dem laaj man de jox naa leen sama disponibilité jox naa ko ñëpp ndax nag wax dëgg fa yàlla am na nag moment boo xam ni bu communauté bi soxlaa war nañu mën a mën a nekk à leur disposition ñu xam ni par exemple euh, euh, euh, lu jaadu rek man heure bu ma nit woowee ci waxtu liggéey dinaa leen jox rendez ci ay moment yoo xam ni dinaa leen mën a contrôler seen kayit bu matee sax su ma ko mënee dugal dinaa ko dugal incha allah te it ñu xam ni waxtu bi waxtu jàppalante la képp koo xam ni mën ngaa dugalal nit te yàlla tax nga def ko suñ borom dala ci bindal tuyaaba waaye nag ñu xam ni koo xam ne nit ki dugalal na la këyit mënoo ko fay ni nga koy fayee mooy nga fexe ba lépp lu la ci war ci wàllu fay tax nga fexe ba fay ko ndax nag léeg-léeg nit dina def defal nit lu baax waaye safaan ba da ko ci fekk ndax nit ki bu jotee dem rek yaakaar na ni dara war ko ci donte day metti sax waaye ñu def sacrifice boo xam ni euh, euh, euh, ba mbër a mën a matal li nga xam ni moo di condition yi condition yi lenn rek la bulletin bu ñu la jox loo war a fay nga dem fay ko sacrifié ndax nag lu ci ëpp nit ki di nga gis nit ñoo xam ni euh, li ñuy nangu dépensé ci këyit ci avocat moo ëpp foofu li ñuy dépensé ci pour pour ay ay ay te dëkk bi dañuy war a xam ni amul benn bor boo xam ni nit dina ko fi bàyyi bor bi seey te nit ki fay ko te ñu xam ni bor bu fi nit am dafay màgg comme doom Euh, li muy li muy toll ci deux mille vingt bu deux mille vingt et day yokk dina dem ba dina dem ba daanaka mën na laa xañ sax sa nekkin fii ci ci métti noo koy fayee kon loolu dafa nekk ay ay ay ponk yoo xam ni dañ ciy war a bàyyi xel euh, ndax it nag ki la laay laay biir ba dimbali la ba nga am këy wax dëgg fa yàlla war nga koo fay fay fay ngoo xam ne lépp lu gàll lu gàllu ci ci ci ci këyit nga war koo mën a taxaw waaye it ñu góorgóorlu ba nit ki nga xam ni war nga koo mën dimbali rek te yàlla tax nga dimbali ko xam ni tuyaaba bi ci am gën fuuf benn 500 euros boo xam ni boo ko lekkee euh, daanaka euh, euh, doo xam sax waaye nga diggante bi loo nit ki du ko fàtte ba abadan ndax nag ki la defaral këyit ngir yàlla yaakaar naa ni foo toll di ko fàttaliku loolu daal mbokk yi. Euh, ci ci tënk mooy li nga xam ne euh, moom la loi bi euh, loi bi di jéglu nag bu baax bu fekkente ni waxtaan wi am na lu ci dëng ñu xam ni rek doomu aadama léeg-léeg moo moo matul loi bi daanaka quatre cent soixante quatre la ñu góorgóorlu ci ba jukki ci li li nga xam ni moom la ñu suñu xel may di ñaan yàlla mu jëriñ askan bi bu baax waaye di leen xamal ni ndax nag du ñàkk ñi ngi ci ñi ngi ci xool ay pexe euh, di ci jàng ak ay borom xam-xam ñoo xam ni mën nañu ci wàllu loi bay xool yenn xeetu bunt lañ ci mën a am euh, képp koo xam ne rek am nga ci lu la jaaxal euh, boo ñu woowee luñ ci xam dinañ leen ko wax di sant nag bu baax ci bunt bii ngeen ñu may ba ñu mën a waxtaan ak yéen waaye di sant soxna Mariam bu baax ci dalal bi nga xam ni moom la ñu dalal Euh, di ñaan euh, liggéey bii nga xam ni moom lañu ñu bokk di ko def euh, askan wi di ci gis njëriñam ba ba ba muy yokk ba nga xam ni dina dina kawe suñu njort ba fuñ ko fuñ ko xalaatu lool rafet naa ci njort nag bu baax ndax gis naa farlu bi ngeen ci farlu sëriñ Fallou ñang Seydina ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci gannaaw di leen taxaw nekk ci wàll technique beeg yépp vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di leen baalu ax ci koor gi te di leen baalu ax di nag lépp loo xam ne dëng nañ rek ngeen xam ni mm, doomu aadama bu matul waaye lu ci leer ngeen xam ni ndimbalu suñu borom la di leen sant di leen gërëm di xaar laaj yi fekkee am na jërë ngeen